ah kenn daf maa mën a weddi Sénégal ñi ko baaxal ñëpp tukulóor la benn benn séeréer la ci am ñi ci des ñëpp tukulóor lañ benn te séeréer yooyu sax tukulóor yee leen tax a baax waaw donte nag tey moom maa ngi leen di sànni fleur sama yaay séeréer la waaye nag wax dëgg yàqul dara séeréer yooyu sax tukulóor yooyu leen tax a baax waaw ndax séeréer moom ceddo la rek waaw kon nag tukulóor eh, dañu am jomm dañu diiñ nangoo liggéey wolof rek ay sàcc rek sàcc fen tappale wolof rek a koy def wolof rek mën a fen mën a sàcc mën a tappale wolof rek waaye tukulóor dañu am jom dañu am jom nangoo liggéey nangoo jàng bari xam-xam moo tax ñi fi baax ñëpp tukulóor lañ yal na leen yàlla fay tukulóor yi yal na leen yàlla fay dañu baax wolof dañu bon te Seydi Hadj Malick wax ko waaw Seydi Hadj Malick da ko daan wax dafa daan wax ne ñaar daf ko daan wax daf daan wax ne yàlla nattoowuma lu weesu ma feeñ ci biiri nit ñu ñuul kon xam nga nekk nit ku ñuul rek gàcce la waaw ndax nit ku ñuul xamul xamul boppam xamul li ko yàlla di doyee du xaste waaw parce que li may wax mën naa ko lay demal à travers le monde foo dem ci àddina bi nit ñi ñuul ñaa gën a sonn parce que ñoo gën a soxor c'est ça la réalité man nit ku ñuul la mais donte sama origine naar la waaye sama ndey ngi fii di nit ku ñuul dëgg la boo waxee ñu naan kaaba gi dafa ñuul après alxuraan mbind mi dafa ñuul après xol bu ñuul ba na. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu al imtisaaku bi xablillahi almatin seen mbokk imaam Xaadim Njaay maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara leen ci chaabaan bu tedd bi ñu ñaan yàlla mu eggale ñu ci ramadan ak jàmm tey weesu ko tem nangul ñu euh, xam naa imaam cheikh euh, mbokk mi mu dugal mooy ki neey nee naay ab sërif la loolu moom du jaar sax ñu fay taxaw waaye nag moom mii da am na ay moroom yoo xam ne ñi ngi feeñ léeg lekk ni ñuy feeñe nag du bokk mooy nit ñoo xam ne doo mën a wax ne dañoo dof est ce que ñii seen xel ñoom doo ci mën a sikki sàkk waaye luy tax nga sikki sàkk ko rek la ñuy wax nit ñoo xam ne danga nga doo mën a wax ne ñii ay jaay lañ jànguñu waaye nag luy tax nga mën a wax de jànguñu rek lañuy wax moom lañuy ñuy jëf itam nit ñoo xam ne dangay wax ne waaw kii est-ce que soxarut doo ko mën a wax de waaye luy tax ñu ne ku soxara ngi nii rek lay wax moom itam lay jëf waaye li ci ëpp ci ñoom boo leen di jàngat doo gis lu dul ne dañuy taskiya seen bopp seen bopp lañ bëgg a jël teg ci kaw nit ñi place la ñuy wut point la ñuy wut position la ñuy wut daaniki coow lu bare bare bari mbokk yi ci réew mi nan ngay def bañ dégg la te melo melokaan wa amoo juddu ba sax boo demee nga bëgg koo mottalee aw làmmiñ ak média ba tax nga féete kaw ñëpp su boobaa na ngay def mooy yëkkati sa bopp ak di got ci képp koo xam ne nii cëram boo ko ko nangulee dalay tiim nga gàntul ko cër ba ngir tolloog moom wala nga tiim ko boo gisee weddi cër yëpp ku jóg nga xëpp suuf ci moom bu dee xam nga ne xamut bu dee fu bokk fu baax nga ne baaxut bu dee ku ñëpp jox cër nga ne cër biñ ko jox waruñ ko koo jox fuñ ko teg ci biddaa lañ ko teg wala da da leen a not wala du ak neen wala ay pexe la ndax lan mooy foofee ñu ko wàcce ñu ko teg li feeg wàcce woo ko fa yow doo fa mën a tege te loolu mooy sa dund lool rek nga bëgg ndax boo dégloo mbokk mi li mu wax de wolof ay sàcc lañ duñu liggéey duñu jàng tukulóor yi rek ñoo baax ñoo fi liggéey ñoo jàng ñoom ñoo sell ñu fi baax sax tukulóor yi leen baaxal loolu ak làqutu gaa kaay gu mu làqutu la boo déggee mu tudd Cheikh El Hadji Malick radiallahu anhu tudd ko wax ne wax na nangam ak nangam ak lim wax ne tukulóor yi ñu fi baax ñoo leen baaxal lool ginnaaw moom fa wax na ne fa la bokk ba pare bëgg a wane ne tukulóor yi ñu fi baax ñoo leen baaxal waxaat na ci biir ne ndeyam ci boppam moom séeréer la nee séeréer yi baaxuñu waaye am na ci benn benn yu baax ñi ci baax tukulóor yi leen leen baaxal ndax ñoom ay ceddo lañ kon yaayam ceddo la tuubeen la baayam a ko tuubal moo tax mu baax kon baayam yaayam mujj na baax génn ca séeréer yu bon ya comme wolof yu bon ya ñëw bokk ci tukulóor yu baax yi ndax ndax baayam a baax bim ñaawale nit yu ñuul ñi itam ak lim ci tuumaal Seydi Alaaji Maalik nga xam ne ku ko xam-xam ne du waxe noona bi mu leen tuumaalee ba noppi dafa wëlbatikuwaat ne moom donte origine am naar la mi ngi dawaat di jéem a génnewaat ci ñuul gi nga xam ne moom la ñuul pour daw ca naar ga toujours pour baaxal boppam kon kii daal day wax rek xaw ma shérif la ci aw tur wala shérif la ci ay pexe waaye jëfam euh, shérifé wut ay waxam itam shérifé wut